normalement érection excitation sexuelle moom moo ko war a provoquer mais bu dee priapisme la érection bi dafay ñëw spontanément day toog ba benn instant rek mu am érection euh, pénis bi dëgër en plus de ça dafay am douleur douleur boobu nag moom mooy tax malade bi ñëw consulter aux urgences buñ ko examiner dañuy gis ni pénis bi dafa dëgër comme érection érection lay doon mais dafay metti te en même temps érection normalement boo amee érection en un certain moment bu da am éjaculation mais bu dee priapisme la érection bi dafay continuer te du aboutir ci éjaculation donc loolu c'est une urgence urologique ou bien andrologique buy war a tax mu ñëw consultation priapisme boobu nag euh, cause yi euh, bariwul euh, cause bi ñuy gën a retrouver ci dans quatre-vingts pour cent des priapismes mooy drépanocytose donc boo jëlee cent patients cent ñee ñaar fukki malade quatre-vingt yëpp boo xoolee cause bi euh, drépanocytose la à part drépanocytose am na yeneen feebar comme ay cancer du pénis wala leucémie wala thalassémie yoo xamante ni mën nañ joxe priapisme donc su bi ñëwee aux urgences premier réflexe bu ñuy def mooy lu ñuy tuddee ponction caverneuse ponction caverneuse benn euh, seringue la ñuy jël. ñu piqué ci pénis bi aspiré boo aspiré da gis ne dafay génn deret ju bu ñuul kukk parce que deret boobu circulé wul ci pénis bi normal moom moo tax mu gonflé noonu loolu nag su mënul am benn détumescence maanaam pénis bi delluwaat position normale am wala consistance normale am il faut nga opérer malade bi am na plusieurs techniques yu bëri yoo xam te mën nañ ko utiliser pour malade boobu pour euh, priapisme bi dañ même boo ko defee opération boobu ba pare aussi il faut nga def mesure de prévention mesure de prévention yi mooy lu ñu tuddee vessie de glace dañuy toj ay donju glace ñu teg ko autour du pénis pour mu mën a sedd parce que bu seddee mën na favoriser sang bi génn ci biir pénis bi ba ba du amaat beneen érection à part loolu am na yeneen traitement yoo xamante ni comme traitement drépanocytose la ñu fexe ba malade bi quantité de sang am ci yaram bi mën a équilibré wu mu bañ a def ay crise vaso-occlusive et tout donc euh, loolu mooy euh, priapisme ci wàllum euh, priapisme principal complication boo xamante ni moom mooy conséquence bi bu dépassé vingt quatre heures te traité wuñ ko rek dafay commencé yàq lu ñuy tuddee corps caverneux yi corps caverneux moom mooy tax nit ki bu amee érection sang bi mën a yegg si biir pénis bi mu mën a gonfler mën a dëgër pour mu mën a sëy donc bu bu weesoo vingt quatre heures yooyu corps caverneux yooyu dootu ñu am élasticité pour mën a am euh, pour mën am benn dilatation bu mën a tax ñu mën a am érection bu normal donc la plupart des des malades qui ont le priapisme dañuy dem ba mujj gi dootuñu am érection bu baax dootuñu mën a jugal bu baax dootuñu mën a def rapport sexuel ba maintenant de plus en plus dañ leen di defal lu ñuy tuddee ay prothèses. pénienne prothèse pénienne ay euh, matériaux yoo xamante ni dañ koy dañuy ubbi pénis bi dugal ko ci buñ bëggee sëy ñu gonfler ko mu gonfler wu ñu sëy bu ñu sëyee ba pare ñu dégonfler ko pour ñu mën a am activité sexuelle plus ou moins normal Racky voilà Aïcha mu ngi noonu priapisme nag comme ni ñu ko waxee woon sànq dafa di ab feebar boo xamante ni góor ñi lay dal euh, seen awor nag lay attaqué tout le temps dañuy am envie def euh, rapport sexuel tout le temps dañuy yëg seen bopp euh, sans pour autant ñu am excitation sexuelle maanaam ñu war a sekk ak seen jabar wala quelque chose du genre en dehors de toute excitation sexuelle voilà c'est ça léegi nag euh, d'habitude euh, feebar bi dañ koy retrouver chez les drépano mhm. euh, la plupart parce que ñoom dañuy am hypercoagulité du sang léegi au-delà de ñi nga xamante ni sont des drépano da nga koy retrouver si ñi nga xam ne dañoo am cancer du pénis par exemple ou bien ñi nga xam ne dañoo am cancer du sang. Mhm. comme genre leucémie. Mhm. donc genre personne yooyu noonu la la gën a fréquent en donc y a des yoo xamante ni bu ko bu ko nit ki amee par mhm. exemple genre automatiquement dañ koy yóbbu urgence il fois dañ koy yóbbu automatiquement waaye parce que une fois que mu dañ koy defaral li nga xamante ni mu di traitement parce que dañuy retirer sang bi parce que sang bi moom moo euh, tasul mhm. ci euh, awra ku góor ki ba mu mën a am érection bu war a tax muy mën a éjaculer donc mhm. day coaguler il faut que ñu defaral ko sa au niveau du pénis pour mën a aspirer li nga xamante ne mu di euh, deret boobu. Mhm. ba ñu defaral ko vessie de glace dañuy jël ay glaçons def ko autour euh, euh, pénis bi pour mu mën a en fait. Ah, voilà pour mu mën a sedd donc ce sont des yoo xamante ne c'est tellement douloureux. Mhm. on en parle pas mais c'est très fréquent chez les hommes mm-hmm. Mm-hmm. et ce qui fait qu'aujourd'hui bu ñu ko defee traitement boobu noonu euh, bon ça va il est soulagé mais ça peut être aussi très fréquent chez la personne mm-hmm. donc si loolu bu demee nag bu dépasse au-delà de 24 heures ça peut amener des complications mën nañ ko yóbbu bloc defal ko intervention chirurgicale et ci traitement yi toujours donc on peut euh, en venir ci li nga xamante ni mu di euh, prothèse euh, pénienne bi nga xamante ni moom lañ koy defaral lors de l' opération chirurgicale dañuy ubbi pénis bi def appareil bi mm-hmm. pour aujourd'hui bu amee ay désirs sexuels mën a bëgg di sekk ak jabaram par exemple day activer parce que au niveau du testicule li ñuy def euh, comme genre benn contact la buy mhm. gonfler euh, euh, appareil bi pour que aujourd'hui pénis bi mën a nekk en érection après mu def ses besoins sexuels ba pare da koy bësaa rek après l'appareil dégonfle du coup voilà c'est comme ça day am contact comme genre contact la okay. parce que moom moo koy stimuler moo koy gonfler en fait euh, euh, en quelque sorte voilà c'est ça léegi ci euh, loolu si ça se fait pas ça peut entraîner aujourd'hui li ñuy wax impuissance sexuelle parce que mm-hmm. bëri na ay góor ñu tële ñu leen di xas et tout mm-hmm. peut-être que ce sont des gens ñu am feebar bi par mm-hmm. exemple donc voilà c'est c'est en quelque sorte c'est ça conséquence yi ça peut entraîner aujourd'hui l'impuissance sexuelle et les traitements sont là et ça ne devrait soo ko amee te amoo jabar nag loolu dina compliqué. ba voilà le traitement en fait une fois aux urgences comme ni ma wax en fait dañuy aspirer sang bi léegi ñu defaral ko vessie de glace am na ñoo xamante ne rek day jël temps pour mu pour pour mu soulager wu d'habitude dañu leen di tegalal ay euh, film prono ñu ñu ñu jéggal ma ci wax ji parce qu'on est en train de d'enseigner et de faire comprendre les gens loolu moo leen di soulager y a que ça en fait qui qui peut leur soulager bu ñu defee yenn yenn les deux premières méthodes jàll donc on est obligé parce que il faut que mu éjaculer pour mën a am. pour mën a soulager woo en mhm, fait. Mhm, mhm, pétaw léegi loolu mën na durer nit ki ñaata temps. warul en tout cas dépasser vingt quatre heures. Ah. mën na aussi dépasser vingt quatre heures. lan mooy risque bi. risque bi mooy tële. te lay yóbbu en puissance sexuelle dootoo mën a yëg sa bopp ah, parce que affaire bi parce que day yàq corps caverneuse yi en fait mm. corps caverneuse yi mooy permettre tey ku góor ki di mën a euh, nekk en érection ba di mën a nekk ba di éjaculer en fait en quelque sorte mm-hmm. kii mm-hmm. na alors loolu euh, Racky képp ku am feebar boo xam ne c'est dû au sang rek mën nga ko am bon comme leucémie par exemple les SMI ou bien chez les drépano ñoom nga xamante ñoo am hypercoagulité du sang. Euh, ça peut leur arriver. wala ñu am cancer du pénis. wala voilà cancer du pénis aussi. donc Aïcha tamit posé na benn question mooy pour ñi nga xam ne amuñu jabar donc bu ñu demee ñu tegal leen euh, film X. Mm. donc ñoom obligatoirement dañu war a masturber wu pour mën a yëg seen bopp. forcément parce que on cherche tous les moyens pour que nit ki mën a soulager wu. soulagement bi leen lu dul éjaculation bi. donc mmh. tous les façons de pour faire euh, jouir euh, éjaculer autant pour moi la le patient dañ koy def. Mmh. mooy mooy feebar boo bu kii la wala bu c'est très répandu ci Sénégal wala. bon on, le retrouve très souvent chez les drépano c'est très mm -hmm. fréquent chez les drépano. ok mhm. xamuñu lan moom moo koy lan moom moo koy andi wala. les causes bon par contre comme on a dit hein c'est c'est par rapport euh, à à bon. ah su fekkee da nga feebar da ngay dal quoi cancer du sang plutôt. ok su fekkee da nga feebar la lay dal. exemple ok donc moom moo lay moom moo lay stimulé ba loolu mais loolu doy na waar. feebar bu doy waar. ni ko rakk nettalee kay moom boo xamante ne amul secret la quoi. Mm. Hmm? bah oui on peut dire. Ah, kii rek yal nañu ci yàlla musal waaye ay gànnaayoo jàllaaba rek. mais comme bu passé 24 euh, parce que bu passé 24 moom mooy indi li war a yàq corps caverneuse d'accord bu yàqoo. da ngay dem ci impuissance sexuelle na yàlla nañ ci yàlla musal merci Racky ñu bàyyi la en quelques secondes nga tëj foofu noonu rek bon déjà loo xamante ni <laughs> mënuñu ko éviter bon vu que je suis pas médecin nag et que je suis pas aux urgences bon je peux pas dire que j'ai vu mais en fait d'après le médecin parce que élément bi médecin hmm. urologue bi moom moo ko def daf ma en fait euh, genre sont des cas très fréquents yoo xamante ne on le retrouve chez les drépano et ceux qui ont euh, voilà euh, hmm. le cancer du sang ou bien voilà cancer du pénis mais on n'en parle pas et moi pour dire vrai j'en connaissais pas hmm. pour dire vrai on ma woon priapisme en fait te xaw ma woon ni ko en fait ça peut ça donc pour man tout érection bu nekk estime genre euh, day fay am euh, désiru sexuel moom mooy waral ku góor ki am euh, li nga xamante ni moo di érection donc du moment où y en a certains hommes. Mm-hmm. dañuy am érection. te mm-hmm. duñ ko bëgg duñ ko bëgg. donc vraiment c'est c'est vraiment dur metti na et donc faut juste suivre les traitements et être vigilant pour que mu bañ a dépasser 24 mhm. heures. Mmh, mmh. merci ñu merci ñu jaajëfal bu baax a baax ci élément bi am na solo on enchaîne rapidement ànd ak euh, Ndeye Pétaw ci xew-xew daanaka foofu la ñuy jaar daal di tëj émission bi léegi léegi rek bu bàkk bi noppee ñoo dikkaat ci plateau bi. ay jëm ngoog ñu ñëw ci fait divers ànd ceeg Ndeye Pétaw comme tous les vendredis Pétaw